jërëjëf salaatu tasbiha julli bu baax la ñëw na ci ay riwaayaat ci addis yonentu bi sallallahu alayhi wa moo ko joxoon addis na euh, abbas na ko ala uxtiyaka ala am na ko ndax duma la jox wala ma may la loo xam ne boo ko defee yàlla dina la jéggal sa bàkkaar yu njëkk yi ak yu mujj yi mm-hmm. sa bàkkaar yu mag yi ak yu ndaw yi nga tey ak yi nga tey yëpp di ko wax ngëneelu salaatu yi mu ne ko julli koo xam ne naafila lay doon da ngay julli ñeenti ràkk ràkk bu njëkk bi nga jàng faate ak saar boo paree nga def subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar fukki yoon ak juróom boo sëggee nga wax ko fukki yoon boo siggee nga wax ko fukki yoon boo sujjootee nga wax ko fukki yoon boo siggee si sujjoot nga wax ko fukki yoon noonu nga koy defee ba ñeenti ràkk yi mat lu ci ne rek fukki yoon ak juróom la gannaaw bu lool rek ya ngay def yëpp fukki yoon lay nekk yonentu mu ne ku ko def yàlla dina la jégal sa bàkkaar yu mag yi ay ju ndaw yi yi nga tey ay yi nga tey yëpp di subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allahu akbar gannaaw boo defee faati ak saar julli la goo xam ne gu am solo la ñu bari ci réew mi danañ ko daan taxawal ku mel ni Baye Alaaji bu Saaxo daf koo defal surne boo xam ne salaatu tasbih la mm-hmm. ku mel ni Oustaz Mor Thiam nga xam ne moom ci kër gi la nekk moom itam at mu nekk dana ko def rawatina ci koor gi sax da koy def ak ñu bari ci réew mi ñu ngi koy def ndax loolu dama ne julli gi passeport la pour aljana wisaa la pour àjjana loo xam ne boo ko defee yàlla dina la jéggal sa rëcc rëcc kon bëri di ko def baax na yonent bi wax na sax ak borom xam-xam yi ñu ne ku mën na koy def sa dund bi di la yoon la wala at mu nekk sax wala semaine bu ne wala bis waaye lu mu gàtt gàtt daal na ko def ci sa dund bi sax benn yoon la. Mhm. imaam jërëjëf ci tontu bi nga xam ni tontu nga ko laaj wi. Mhm. beneen laaj wi ci topp mbokk mi dafay laaj. Mhm. lan mooy histoire Abraha ak waa Makka. jërëjëf Abraha benn gouverneur loxoon bu nekkoon xabas léegi nag ñu ba kaab da daan gis nit ñi di jaar foofu di dem di siyaare ji kaaba gi Abraha loolu daf ko naqadi yoon mu ne lu xew ñu ne ko ñii màkk la ñuy dem dafa am benn néeg boo xam ne moom la ñu aj mu tabax benn néeg ne nañ ko aj ñu ne benn arab ñëw dem fa tuwaale wan ko ne ko daal sa lii du dara ndax yàlla fi mu tabax na ñu fay aj yow ne da ngay topp loolu yàlla boobu nag na wax ne dafay songi maanaam kaaba gi pour faagaagal fekk moom Abdul Muttalib maami yonent bi amoon na ay gëlëm yu génn mu jàpp gëlëmi Abdul Muttalib lii boo demee ci alam tara kayfa faala rabbuka mu ngi nettali xisa bi at moom sax ci la yonent bi sallallahu alayhi di gane àddina Abdul Muttalib ñëw ne ko yow sama gëléem yi jox ma ko mu ne ko yow yow ma bëgg toji kaaba gi nga may wax ne jox ma sama gëlëm mu ne ko inna lil bayti rabban sawfa yaxfasoo azima xawmaka la ab xisi waa nihami noonu la ñëwee ci miim ya noonu la ko borom miim ya woye bu ko defee nag mu delloo ko gëlëmam yi léegi nag Abra fekk amoon na ñey boo xam ne mu ngi tudd Mahmoud ñu ko daan dàkkantele abul xabaas Abra nag moom boobu lay war gaayam yi war ñuy dem pour toji kaaba ji bañ demee nag ba ci maanaam mu xammas ñeeyam wa fa la bañ taxaw ne du dem moom fa la ko mbugal mi fekk boo demee waykat bi dafa wax ne yaa way labraata dalan ma kii datohu ismaa yi suuqu fuyu lan xaasi dal arabi wa fi alamtara yes fii su duuru liman xaran la oo samma fi elmi alihim ci xilaasu zahab bi foofu nag la ko yàlla fekk yónnee ko ay picc ñu koy sànni ay njanaaw boobu nga xam xisa bi yàlla mu ngi wax ne mhm. ba yonent bi ne ko alam tara kanaa xamoo kay fa faala naka la def rëbb ko sa borom bi asaabi fii ci borom ñey mhm. muy abraham alam yi jël kay doom fi tadilin yàlla mu ne seen pexe dama ko mu jël sànkal ko mu ne ba muy tëj saara dafa ne fa jaalum ka asil maxkulin yàlla mu ne abraham dafa mujj mel ni ngóobeef maanaam tool boo xam ne da nga ko ji ba mu taxaw toolu dugub wala toolu sunu wala toolu mboq nga dem jël góob góob ko ba tool ba jeex dara nekkatu fa mbiram Abraham noonu la nitam ñi dee moom nag deewul ca saasa waaye feebaru julduraan moo ko dal ba muy ñëwal ci dëkkam ñu ne dafa tuuti ba mel ni piccam ndiiti ndiiti ñenn ñu ne dafa tuuti ba mel ni xandeer ci tuutaay gi mu tuuti ba mu ñëwee rek ci la génn àddina ndax yàlla dafay waroon ay ay kii ñuy sànni ay ci seen bopp yi kon loolu ci tënk mooy xista alam tara kayfa Abraham génn àddina ci génn àddina bu ñaaw xew-xew boobu nag ba mu paasee maam ndong ba am juróom fukki fan maanaam ci la sangi-sangi yi sallallahu alayhi wa sallam gane àddina ba xew-xew boobu paasee ba am juróom fukki fan bi aami fiilin su yow man bax da nuunin amu fiil xew-xew boobu paasee ba am loolu rek ci la sallallahu alayhi wa sallam gane àddina booba papam génn na àddina moom yonentu bi ndax ba ko yaayam ëmbee ba am juróomi at juróomi weer ñenn ñi ne juróom benn weer ca la génn àddina fi xam satin aw sitatin alakat ca la papaam génn àddina maamam Abdou Moutalib tuddee ko Mouhamed ñu ne ko loo ci jublu mu ne ñooñ kaw ak ñooñ suuf yëpp sant ko kon tënkal naa la xisa Abraha bi ak alam tara kayfa jërëjëf imaam ci tontu wi nga xam ni tontu nga ko laaj wi mbokk mi nga xamante ni moo ci topp ci laajam moom dafa ni su fekkee ni mhm. sa soxna dafa ëmb mhm. te bi mu ëmbee yàlla dogal mu génn àddina ci ëmb bi te du jullit mhm. léegi moom soxna soosu néew bi nan la ñu koy def parce que ki mu ëmbal doomam kooku mhm. jullit la jërëjëf jàng nañ ci xam-xam ci alxuraan mu ne mhm. dagan na takk koo xam ne ñooñ téere la ahlul kitaab la seen jigéen ñi dagan nañu takk leen wal muxsanaat minal lazina utul kitaab min qablikum alxuraan wax na ko bu ñu leen takkee nag mooy waa jàngu bi bu ko defee te moom tuubut ba génn àddina ëmb Cheikh Khalil dafay wax ne du fi nat musrikatun am xumilat bi muslimin bi maqbaratihim laa xiblatuhum wala xiblatana Khalil mu ne maanaam jigéenu chrétien bu ëmb doomi jullit boo xam ne dafa génn àddina ñoom ci seen armée di lañ koy sul ñoom hmm. waaye mu ne buñ koy sul nag niw ba du jublu ñoom fi ñuy fi ñuy jublu du jublu ñun fi ñuy jublu dañ koy galal mm-hmm. maanaam du jublu ñoom seen xibla mm-hmm. du jublu ñun si suñu xibla dañuy galal euh, femme bu jigéen ba mm-hmm. wante nag duñ ko sul ci armeelu lu jullit ñi ndax moom du jullit loolu moo ne ci masa bu maalik waaye kim ëmb moom ku génnagul euh, ku juddoogul la ñoom ci seen armée li lañ koy sul waaye ñoom fi ñu inale seen niw duñ fa inale ndaw sax ñun tam fu ñu inale suñu niw duñ ko fa inale lu wax na ko Euh, musrikatun xummilat bi muslimin bi maxbaratihim laa xiblatuhum wala xiblatuna boo demee ci muxtasar bi Cheikh Khalil noonu la ko indee. beneen laaj wi nga xam ni moo ci topp mbokk mi dafay laaj kan mooy sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha jërëjëf sayyidatuna Aïcha soxna la ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. Aboubacar mooy way juróom bu góor Umu Rawmaan mooy yaayam mhm. mu ngi gane àddina Màkkatal Mukarama moom nag euh, li xew ci moom mooy ba mu juddoo ba am juróom benn at moom dañ ko teel a maye. Mm-hmm. moo tax maye xale bu ndaw araamul mm-hmm. wante jël bi moo am diir bi ñu koy jël mm-hmm. juróom benn at rek ci lañ ko maye boo demee ci ah borom miim dafay wax ne wa bintu sittin xawaa muxtaaru aysatan min qablu hijrita jiiman laa taqi bi loolu ñëw na ci miim ya bu ko defee nag ba ko yonent bi di jël sallallahu alayhi wa Aïcha ba muy judd sax fi daalin mi ne umam gis nga maam ndongo ba yónnee yonentu ba mu am ñeenti at ci la Aïcha door a judd kon ko xale la ba ko yonentu jëlee ba mu amee fukki at ñenn ñi ne juróom-ñeenti at nag ci la ko yonentu bi door a jël ñu jébbal ko ko sallallahu alayhi wa bu ko defee nag Aïcha moomu noonu lay nekkee yonentu bi yonentu sallallahu alayhi wa sallam ulamaaw siira nangu nañ ñu ne benn soxna la mas a am mu nekk jànq mooy Aïcha ñi ci des ñëpp ba mu leen di takk dafay fekk ñenn ñi seen jëkkër yi dañoo gaañ waaye Aïcha moom moom la takk mu fekk mu nekk jànq mu nekk jànq loolu siira wax nañ ko wax nañ itam ne moom la yonent bi gënoon a bëgg mhm. ci soxnaam yépp Sayyidatuna Aïcha yàlla daf ko may loo xam ne daanaka may ko benn jigéen ci soxna yonent bi mooy fukki aaya ak juróom benn ñenn ñi ne fukki aaya ak juróom ñett setal na ko dañ ko tuumaaloon mooy léegi yàlla di wax ci alxuraan ne inna lasina jaa'u bil ifki usbatun minkum laa taxsabu saran lakum bal huwa xayrun lakum li ko waral mooy dafa am benn xare bu tudd xasatu ba bani mustalex yonent bu daan def dafay wantale wantale mooy lëtëre mhm. ku ku turam génn rek mu ànd ak moom ci soxnaam yi dem tur ay sa génn ñu dem bañ demee ci xare bi ba pare ay sa am fu mu tëdd rek di am lu mu itteewoo di ko jël tëdd di nelaw ñoom ñu ñibbi comme ñëw na ci buxaar yu comme niñ ko nettalee ci téere yi maanaam Safwaan ibnu Muxtal ñëw ne kii du sang beem Aysa ne ko man la mu jóg mu yées lu gëlëmam gi foofu sax ba mu gisee Aysa am na ñu ne dafa wax ne laa hawla wala quwwata laa billaa mu yées lu gëlëmam gi Seydina Aysa yéeg moom yéegu mu dem ba mu jubee dëkk ba rek naafeq yi gis ko ne Safwaan ak Aysa ci àll bi ñi dañ doon mooy tuumaal ko mm-hmm. léegi nag ci xew-xew boobu fekk Aysa fan yooyu dafa feebar yonent bi ne ko demal seen kër ay sa dem këram yonent dégg coow li bari na bu koy seet dafay ñëw ne ay na tiikum wala kay fa tiikum ñëw nañ ci téere addis yi muy fees dellu ci téere siira yi naka seen kooku xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a mat ñëpp wante benn côté nit lay doon dafay dégg léeg-léeg di gëm li ñuy wax léegi nag moom xamu ci dara yaayam xamu ci dara yaayam di dem rek ci àll ba ànd ak benn waay waa ji fa kastalu ne yal na yàlla alag mis sax mu ne ko kooku ni mu baaxee fekkee xare badar fekkee yëpp ngay wax loolu mu ne ko kanaa déggoo lu muy wax sa doom ji mu ne ko kan mu ne ko Aysa mi muy wax ne dafa mu ne ko Aysa kon dañ koy tuumaal yaayam ne ko ah kon loo tax yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñëwee ne kay fa tiikum ba mu ñëwee wax ko Aysa rek Aysa bënn bëtam di jooy yonent ñëw ne ko mm, kaay bu dee li nga def yaa ko def seetalal sa bopp Aysa ne ko jarul may wax bu dee man def naa yàlla xam na bu dee defuma ko seetal sama bopp itam amul benn njëriñ yonentu dam yàggul dara mu ñëw di muuñ ne ko yàlla wàccee na aaya ne da lay setal mooy na inna lasina jaa'u bil ifki usbatun minkum laa tax sa taxsabuhu sarun lakum bal huwa xayrun lakum oustaz addis sa boobu la ñuy tuddee addisil ifk yàlla mu ne yéen a ngi tuumaal mbooloo mu bari ñu ngi ne di wax ci benn xew-xew foon ne ay la waaye yiw la ay sa dafa kontaan mu ne xamoon na dina set waaye li ko gën a kontaan loo mooy li yàlla wàccee di ko setal gis nga ku jàngate alxuraan ñëw ci suratu noor rek dana xam ne ay sa ku baax yàlla nag di attaqué saaba yi ci waxoon ndax dafa am ñoo xam ne yonentu da leen laajoon ñu wax am na ñum laajoon ñu ne dëgg laam du dëgg fase ko rek ndax yow da nga baax ba nga xam ne yow ba nga solee daal loo xam ne sax dafa am sobe jibril mooy ñëw ne la summil ko mu ngi ci téere yi seen turi saaba yi waaye jarul ñëw indi tur yi am na ci ñu ñoo xam ne dañu leen laajoon ñu ne ko yow yàlla du la nattoo jabar ji mooy am na ñoo am na ci kum laajoon mu ne ko Aïcha mi nga xam ne xale la benn bis daf doon mooñ rek di nelaw sunguf ba benn rab ñëw lekk ko kooku du def loolu yàlla nag ne wala wala istamirtumoo qultum maa yakun lana an natakallama bi haza subhanaka asa buxtaan asim lu tee ba ngeen ko déggee ngeen ne du ngeen ci wax bu yàlla ne yahisakumullaahu an taxaddoo li misli abadan mu ngi leen di waar lu mel ni bu leen ko waxati mukk mu walaw laa jaale bi arbaat soda mu ne lu tax indiwu leen ñeenti seede bu ngeen bu ngeen déggati xew-xew yi ñuy tumaan indi leen ñeenti seede yi wane ne moo ko def walaw laa walaw laay ñëw ci alxuraan bari di seetal Aïcha kon am na particularité rek yàlla wàcce na alxuraan di ko seetal. Hmm. moo tax maanaam Seex al Islaam dafay wax ne benn xale bu jigéen benn jànq boo xam ne yàlla dafay toppatoo mbiram bay wàcce ay alxuraan di ko seetal kon ko am may beneen bi Aïcha maanaam solo na ñaari junne addis ak ñaar téeméer rek fukk boo demee sa maam Alaaji Maalik daf ko wéy dafa wax ne faqiatun hadda wardin xarrawar xabarat min baxda alfay hadis wa hiya lam bi ñaari junne hadis ak ñaar téeméeri hadis ak fukki hadis maamalaaji Malik bu ne Aïcha solo na ne yonent bi moom moo wax loolu kon kooku indi na ci diine ji lu bari ñu ne yonent moom la waxoon ne xusoo ni su ni su diinikum anaa si umayra jàppee leen seen genn wàll diine ci ndaw su xonq si am na ñu ne hadis bi wérut waaye bi wérut ñaari junne hadis ak ñaar téeméeri fukk ku ko solo ci diine ji indi nga lu bari maam doo yàlla may keroog ba yonent di génn àddina maanaam ci bisu ayam la bis bi mu aye ci la yonentu génn àddina ndax yonentu ba feebaree dafa wax mu ne nañ koy wëral rek moom daal ku mu aye rek nañ ko fa yóbbu mu dem foofu jigéen ñi ñu mel ni Sawda mu ne suñu aye nañ ko Aïcha ca néeg Aïcha la génne àddina maanaam ca bisu aye Aïcha beneen bi tegu ci fi ñu ko denc ci Madinatul Munawwara noonu fi ñu ko denc noonu fi nit ñi di dem di siyaare foofu mooy foofu mooy néeg Aïcha ndax ab yonentu kenn du ko toxal fu mu génne àddina ba yonentu di génn àddina Aysa ngi dund fukki at ak juróom-ñett la xayun la dund moom Aysa lim dund yëpp daf lay jox juróom-benn fukki at ak ak juróom-benn moom la ñu tënkee Allahu wa umruhaa fi wakamin loolu la borom xilaas wax ñu tënkaat ko beneen tënk muy Allahu mooy juróom-benn fukki at ak juróom-benn turu Allahu la Aysa dund. ba yenn di génn àddina moom Aysa mu ngi am euh, fukki at ak juróom-ñett boobu jànq la gannaawam na kenn tëkkaaf tëkkaatu ko fa ndax yeneen maam oustaz. ay soxnaan kenn du leen takk alxuraan wax ne wala tankihu aswaajahu min ba'di abadan yàlla mu ne gannaawam bu leen takk soxnaam mukk mu nekk te nag li ca xew borom ci ulamaaw siira ñu ne nee boobu noonu yonent génn àddina ñu suul ko fa Aysa fa la nekk ak bàmmeel bi moom itam ba ba ba Abubakar ñëw ñu suul ko fa ñu ne ba Omar ñëwee nag la génn foofu kon daal laaj nga jigéen joo xam ne ku màgg mbir la ku màgg mbir ba alxuraan tudd ay mbiram mm. jigéen joo xam ne ju mag a mag a mag ci lislaam wax na ci lislaam loo xam ne lu bari la kon ci sa laaju Aïcha boobu waaye maam jërëjëf ci tontu bi nga xam ni tontu nga ko laaj wi mm-hmm. dafa tombeek nag li nu cëraloon ci waxtu dab nu mm-hmm. ñu daal lay jox kàddu nga tàggoo jërëjëf oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu suñu mbokk ci spectateur yëpp di ndokkee rek borom kër gi suñu directeur général Alaaji su nduur ak personnel bi koy jàppale yëpp directeur Ndiaga Ndour ak Bouba Ndour ak Birane ak suñu réalisateur bu mag bii di Alaaji Maaw Cissé ak ñu ngi seetaan ñëpp ci àddina ñu ngi leen di nuyu bu baax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëfu Oustaz si li nga xamante ni nii mooy laaj yi nga xam ni jip na fi nga tontu ko ñu ngi la ci sant di la gërëm mm. ni nga ko waxee di sant di gërëm ñi nga xam ni ñu ngi ci kër yëpp di sunuy kilifa mm. tàmbale ko ci Youssou Ndour ba wàcc ci suuf mm. ñoom boobu ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu ziar leen biraan bàyyiwunu kenn alaaji Maawa se jërëjëf ci waa yi ñoom ñi nga xam ni ñu goon foofu ci liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm joxaat leen dig daje incha allahu rabbi suba ci waxtu wi seen émission fatwa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.